donc par euh, le maire de Nguékokh Pape Songo Diouf pour nous examiner ay points yu différents qui ont été amal na place la askan wi points qui ont ngi euh, tourner autour de des fonds de dotation également ak euh, ay délibération yoo le conseil aussi waroon na voter ak également autorisation de virement de crédit donc moom lañ nekkoon tey di ci vraiment le quorum a été atteint, tout le conseil municipal était là, Masha'Allah. Donc, Alhamdulillah, parce qu'on vient de finir maintenant. Waouh, Monsieur Diouf, nous avons vu que nous un ci mujjantal gi la muy dernier point bi lan et ko waral ak nan ngeen mujjee ci vote boobu. coow li du dara lu ko waral bu dul bon opposition opposition la donc ils sont toujours là pour s'opposer Et nous, on a la majorité. Et vraiment on nañ leen ne li le pertinent parce que lu soxal askan wi la donc à la fin ils ont essayé de pour nous terminer la réunion en queue de poisson mais alhamdulillah on a voté tous les points donc euh, li ñu bëggoon am nañ ko te du dara budul intérêt population bi du dara budul développer dëkk bi du dara budul dimbali askan wi loolu rek moom moo fi boole woon tey. waaw Diouf di la jaajëfal ci ni nga ñu accordel temps yi ci explication yu leer si réponse yi xana ñu jall rek ci keneen wala dem ci opposition pour équilibre aussi parce que comme ñaari cas ñoo fi dese il faut ñu top am équilibre bi xana ñu wëri kenn rek ci walum opposition bi mu wax ñu lan la jàngatee mbir mi. comme niñ leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi continuer di woyal liggéey bi ndax euh, gis nañ li nga xam ne moom moo fi am tey ci date de mercredi 4 mai 2022 ñu convoqué woon li nga xamante un conseil municipal qui euh, fi jàngat wala fi voté ay points point. Nous ci voté toll ci ñett nag ba voté. njëkk adoption examen adoption de la première autorisation spéciale de recettes et de dépenses de la gestion de 2022 euh, ba ca toftalu mooy examen d'un virement de crédit euh, ñetteelu point ba nag moom mooy examen de la régularisation de lotissement existant et examen de projet de lotissement ah, monsieur le maire euh, lan nga ñu mëna wax rek ci lu gaaw ci lo xamante ne jotoon na xew ci salle bee ci kaw di salle de délibération. waaw euh, bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw ba nu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dajewoon won tay ji ah, di waxtaan ci li nga xamné moy mooy dëkk bi kan bi ci jiitu comme ni nga ko waxee mooy point bu jëk bi autorisation spéciale boko déggé moy dañu dana jot alal jo xamanteni il faut que conseil bi pour ñu war ko mën Si dépenser ci dépense yooyu éducation bokk na ci santé bokk na ci indemnité du maire bokk na ci fourniture scolaire bokk na ci fonctionnement du CLAC bokk na ci carburant bokk na ci produits pharmaceutiques bokk na ci participation diverses bokk na ci fonctionnement santé bokk na ci éducation moo tax tey ñu ñëw pour aller yoo xam ne na 61 millions 61 millions 32 millions yi le fonds de dotation euh, la dit euh, 28 millions moi donne fonds de fonds de dotation moi 28 millions fonds yi nga fonds d'investissement, fonds fonds de concours moi donne 32 millions nous, nous, ñu jagleel ko ay de pàcc ci Nous bi loolu investissement fii nga xam ne mooy centre sociaux wala boog centre commercial bi ñu war a defar 32 millions yi jël ko yokk ko ci la amoon pour ñu war a mën a commencer liggéey bi ci lu mu gën a gaaw des na parce que 162 millions la ñu jéem a lijjanti lan la kaay yoo xam ne bind nañu ay lettres sax ki nga xam ne moom ministre des finances pour mu accompagner beneen bi muy virement de crédit ku tudd virement de crédit mooy alal joo xam ne maanaam ni nga ko mën a tuddee mooy nga war a jënd chaise bi.

loolu mooy virement de crédit maanaam xaalis bu jóge fii dem fële loolu tey def nañ ko ci lu am solo virement de crédit bi mu ngi jëm ci loo xamante ne nii ci wàllu yokkute dëkk bi ci la bokk beneen bi ci topp mooy ñam xam ne lotissement dëkk bi ba nu ñëwee jëkkee ñëw danoo fekkoon ay cahier ay lotissement yi awul yoon toog noonu six mois yoo xam ne liggéeyuñu ñu liggéey def ko li nga wax autorisé leen régulariser ko ba nga xamante ne borom tool ya kenn du la handicapé ci li nga xam ne bu nu bëggee kayit wala bu nu bëggee li nga xam ne mooy euh, unicat wala yeneen yi ñu dem waxtaan ceeg waa service kadas waa kadis kadas ñu dugal point yi yoo xamante ne ni mooy lu am solo muy lan sama kayitu kër muy da am bàyyi nekk nag bu nar a am bàyyi amul kayit fan la jëm te am na lu si yoo xam ne borom tool yi ñoo ko def te borom tool yi nekk nañu ñoo xamante ne ñoom moom seen tool ñun ba ñu laalu ñu leen dañ leen tool jël leen seen tool. waaw ñun nag bu ñu ñëwee te un lotissement officiel mooy lan mooy da ngay dajale borom tool yëpp nga ne leen damay lotisser def un projet de lotissement te boo lotissé borom kër borom kër eh, borom tool bi mën na ci baa ànd sa ñaari parcelle loolu nag lor la bu ñu xoolee lor la ñoom itam ñu defal seen tool yi ñu ne kon nag dañ ko jàllale pour que ëllëg bu ñu soxlaa këyit am ko bu ñu soxlaa dem banque la xaalis am ko bu ñu soxlaa leen am ko loolu tey dañ fi jàllale tey am solo ci dëkk bi boo xoolee tey eh, opposition

danoo bëgg ñu wutal leen i këyit pour ku ci bëgg a bàyyi am bàyyi ku ci bëgg la banque tabax am am am ko koo xamante ne tey def nga sa tool amuloo woon këyit ñu ne kaa ñu régulariser la ko yow nga ne doo ko def loolu kat li ma ko def mooy bëggoo sa dëkk bëggoo sa askan lu tax bëggoo sa askan mooy askan bi ko def am na si ñoo xam ne ñoom seen waajur yoo ko def seen waajur yooyu nag bu leen xañee xamante loo xamante ne tey war nañ leen ko mën a parce que nag attention ñun ba ñu falee dañu war am yërmande ci nit yi am yërmande si askan bi gunge askan bi dimbale askan bi loolu tey doon ñu fale kon bu ñu toogee tey ba ñu mel ni xew am naa yaakaar ne ñoom du ma lu taxawaay bi mu def taxawaay bi mu def lan la mooy tey xañ nit ñi nar a xañ nit ñi la nga xam ne mooy seen àq ak seen muy lan muy kayitu kër goo xam ne boo demee ci banque ba am ko nga mën am bàyyi loo xam ne mosul am njaboot am naa yaakaar ne kooku ku xañ waa njaboot xañ nga leen loo xamante ne nii ah lu doy waar la mais yàlla def na nag ñun ñoo fi majorité ñun la yàlla def ñoo ñoo la dëkk bi wóolu kon ñun jàllale leen ko te incha allah rabbi loolu dana am bu yàlla. incha allah loolu dina am waaye dégg nañ aussi sànq ba ñu demee fekk leen ñoom ñu ngi naan dinañ saisir li nga xamante ne moom mooy euh, autorité compétente maanaam euh, judi juridiction yi nga xamante ne ñoom ñoo jëm ci wàll boobu ci liy jaar ni tey nan nga préparé wala yor nga mbir yoo xam ne di nga koo teg ci taabal bi bu ñu yeggee ci loolu. ñoom lu mu leen jaral pour ñu yàq waa dëkk bi ñun danañ jaral ëpp loolu pour ñu defaral dëkk bi ñoom dañu jóg pour yàqal dëkk bi yàqkat ak defarkat nag mënuñoo ànd ñun danoo jóg pour defar te lu mu leen jaral ci yàq yàqal dëkk bi xañ waa dëkk bi xañ waa dëkk bi seen àq ñun danañu jaral lu ëpp loolu pour dëkk bi baax dëkk bi tegu ci yoon dëkk bi tegu siraatal mustaqim dëkk bi am jàmm loolu rek la tontu bango waaw jërëjëf monsieur le maire honorable député Mokki Nguékokh TV gis nga ne lii moom moo fi xewoon tey ci biir hôtel de ville bi sommes dans ci salle de délibération nous avons euh, une réunion pour convaincre le convoqué premier conseil municipal après installation commission technique le maire nous a dit léegi mu wax ñu li nga xamante